استغفر الله ما الله الصباه وما تغنت تير في الأغصان بالنغم استغفر الله تهداد النبات وما في البحر من نعمة والبر من نعم وجعل قلوبنا على التوادد بلا تنازه ولا تحاسد ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباغض ولا تنافر ملك إلهي غدا لذاته وليس ينهو ضرر لذاته الحمد والشكر ما عند الله على النبي ولدي عبد الله سلمت من الأعداء طرا مهل تجاه لربي وباب الله لم يكن مرتجا اختصني الله بما لم يكن ولا يكون لسواي بكني أذهب ربي لسواي الخاسرين وحد لي كوني سرورا شاكرين حجب بيني وبين المجرمين وخاد لي كوني سرور المسلمين لست أشك أبدا في كوني جار البديع عجبا للكون مد لي الحسنى ومد لي زيد من لي يقول هكا قبل مد يد أنت البديع الذي بانت بدائعه قدرة البدائع لي بالأجر يا الله لخط في كل شيء نفع ذكر من يا نافعا لذوي الإيمان يا الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي سنغال ñi ci réew mi ak ñi ci bitim réew tey dañuy gaaral ay kàddu yoo xam ne dina ci am yoo xam ne xañ na du ñàkk ñu mu bett du ñàkk mu doon mbetteel ci ñoom am ci kàdd yoo xamante ni bii dina ci am ci Sénégal yi ñoo xam ni du doon bett ci ñoom dafa am lu ñuy tudde axbaari sarair mooy dévoilé dévoilé li nga xamante ni bii yu caché woon la yu ñu nëbboon la loolu li ko waral mooy diwaanu silkul jawahir fi axbaari sarair dañuy dellu ci gannaaw tuuti def benn résumé def benn évaluation def benn révélation ngir ñi xamul xam ndax di wax ak ak jaar-jaar ak yi ak responsable yi du xam bi dama ñaan ku ki ca nax ju wala yinil xawla li kulli naas yi mu baaxe ma ko ba kàddu gu mu ci mën a doon ak ci lu mu jëm mbaa ci ku mu jëm mu doon lu nooy loolu ni ñaan ku tedd ki ci yërmandeem di ci rafet njort ci may gi mu nu koy may bu ngeen gisee bi may wàcc ma wàccee ay waxam ay waxam loo ko ubbe rek salam ak afiya dang ko cey am te mom mo wax ne assalamatu wal afiyatu tatta wala dani fi dunya wal akhirah jamono dafa am fa mu toll leral bu jotee dañu ma leeral loo dañu ma waxloo loo du ma nag kenn ma leeral loo du ma ni kenn ma waxloo ndox jubluwuma ci ku ko gëm walla ku ko ñàkk gëm wax yi may wax daal dina xaw a waroo tuuti ak yi ma daan wax fa ma koy tàmbalee mooy ci ñi nga xam ni ñoo baaxoo di jiite réew mi damay dem tuuti ca gannaaw ngir ñi xamul xam rek Talla Sylla bañ ko fi dogalee guddi gaañ ko mu dem hôpital ka ñuy wax Samuel Sarr daf ko seeti ni ko góor gi nee na li ñu la def du wa du wa kërëm wa kër Sëñ Modou Kara la bama ko talé nettilee ma denc gor gi bi nga xamanteni bi jéxal na ak nguuram ba mu delloo ñepp xam fi ma jaar ak mom ci warma ak lima ko defal lepp ñepp ko xam réew mi hmm? tudde ko dom ak yépp leralon na fi bama koy tudde dom la ko waraloon booba dama dem kaolax am luma wax ci mag mu am dom ba mu waxam bané nga wara dem ci tol war leen a baye leen ba lol kep kat la wax mu yebal Habib Cissé ci seigne salou ni ko seigne Modou karangi may khas ma bëgg won seigne bi ne ko yoy nekul ci man motax mu tudde ko dom ja ay de am dom ma tudde ko ko mag la reproché wu ko dara waaye damay révéler damay leeral mu jeexal ci nguur gi dem ay at ba muy dellu si ma doxalee na ma doxalee mu am intention bu mu indaale woon moom góor gi pour renverser régime bi ma taxaw ca ba loolu amul booba la ma géej a tudd booba la ma géej a taas ba fii may wax ak yéen pour senegal yi xam ba ma waxee la mu nar ma génne ko ca borom baax sama taaw ab oto Chrysler am ma jël ko ci moom neexal ko benn xale boo xamante ni bii daf daan nekk moom jege ko Moustapha Mbacké mi xam na li may wax ni ko boo demee naxanteel ak moom mag la fexeel ba li mu nar a wax mu soppi ko mu soppi wax ja wax waxi ku tedd tedd ki Macky loolu laa ko defal am na yu mu jànge ci Ablaye Wade moom yi bu ma sañoon du taree yépp ci man day am yu mu tari am yu mu waaw am na yu mu jàng ci Ablaye Wade waaye am na ci benn parti boo xam ne bu ma sañoon du ko taree ci man ndax du dul jekk ci war ma sama digganteeg moom loolu damay jàngal Sénégalais yi ñoom ñii nga xamante ni bii ay tubaab yu ñuul lañu waaw ndax fa dañ jàng tubaab yi leen jàngal su leen gisee sama révolution bii may waaje yëkkati révolution bu pacifique la mais du pour rek affaire politique wala pouvoir déedéet ci domaine yépp leader laa boo xamante ne bii bi mu jotee ñu cuqtaan ma ne ma jot na te duma waxantu kenn mënut a fexe ba dara ñor ma lu dul li ma ñor muy ko tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ak lim bind bàyyi ko fi moo tax bu nu demee dellu ca la mu nu wax ca masalik fa lay sa yuy jibu sa waadul jismi sa fahatal fata wa suu al fahmi ki koy sowe na der bu ñuul loolu motax faw ñu ñëmé réforme yi faw ñu ñëmé ko deug la concertation national dialogue national tournée nationale tournée internationale yoy yep xagn na baax na waaye Macky su doon moma suma bëggé bëggee damay dem ci seigne muntaka ni ko fi ñu toll lan nga may xelal nan lay doxalee ak sénégalais yi ba kenn dutu grève gas lacrymogène nanga Macky nanga mu déglu ba xam te bu ko Sëñ Muntaxa waxee mu jëfe ko ba xam di ngeen déggate lu ñuy yëngu ci réew mi wala déet tànk li ñu jàng ci tubaab yi moom la ñuy continuer tari jour après jour du mu sa jag faw ñu ñemee ko ay point la yoo xamante ni bi dama koy tënk ndax bientôt dama war a dajeeg taskati xibaar yu bari yu xereñ ngir leeral point par point

loolu moo tax ñu ne faw ñu ñeme idéologie bu bees tàq dalil fi ñuy tegtaloo fu bokkut ak tubaab yi fu bokkut ak socialiste yi fu bokkut ak libéraux yi fu bokkut ak communiste yi am nañ koo xam ne kay wax dëgg yàlla li mun woon leer na nañ te kenn ko àndut kenn dul ay invisible ñu xonq jële li fi ànd ak yow kompaloo ak ñu ñuul ñu yóbbu la huit yu manqué tuuti exil lu ne nga koy daj muy mettee ci yow ni muy mettee ci nit nga am victoire ñëw am li nga am ba tey Bamba fépp ji nekk fépp à travers le monde continent par continent pays par pays waaw kii idéologie am mënta defarum réew faaw ñu ñemee ko néew ñu tey néew ñu ëllëg néew ñu gannaaw ëllëg court moins et long terme moo am étape bu nekk ak la mu laaj mais nañu nangu réforme yi nañu nangu proposition yi parce que régime lu ko renversé dafa yomb day gaaw day bette te loolu yéenewuma ko mag yi Macky yéenewuma ko ko vraiment bu fekkente ni dama ko ko yéene rek kon li ma doon wane ci moom du dëgg waaye nag faw ñu wax ak moom fi ñu toll inna allaha la yughayyiru ma bi xawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim suñu borom du ñëw fii dinu soppil ñun vérité quotidienne vérité relative ci suñu quotidienne moom la ñuy dund bu dee nguur gi nga xam ne dafa reposé wu nag ci vérité absolue li ko tedd ki wax dégg nañ ko mulku ilahiya gardan lizaati walaysa yanhu dararun li zati nguur moom yàllaa ko moom te ku tedd ki la ko jox looloo waral li xutta fi kulli shay'in nafa zikaramin yaa naa fexan li zawil imaan yàllaa ñoom ñii ak ñañu ko bokk leel moo xam ñu ñuul ña moo xam ñu xonq ña takk ndeer lañu yor yoruñu nguur inna kulla shay'in xalaqnaahu bi qadar wa ma amruna illa waxidatun kalamhi bil basar waaw faw ñu delloo si suñuy xel ndax li nu war a wax discours la point yi rek la ñuy wax réew mi réforme yi ci war constitution bi d'abord article premier allahu waahidun la war a doon yàlla kenn la te biir yàlla kenn la jooju ci ngay dugal li nga war a dugal ci mbirum ku tedd ki yëpp ba ci dëkkam bee di Tuubaa ci nga koy dugal ci yàlla kenn la ndax moo wax ni fustu bi laa ilaha illa allahu muhammadun arsalahu illahu moo ko wax waaw lu mu am ci l'unicité ci kennal yàlla lu ko amee foofu lañ koy tàmbalee dëkkam bi war a am autonomie spéciale war a am budget annuel yeneen xulafaa u yëpp xalifa bu ci nekk war a am salaire mensuellement wala annuellement

ñu tambali nak di waatlu ku ñuy jox responsabilité nga wat ci tey surul asir tey surul asir waxi ku tedd ki la moy yombal lu jafé neew ñu na am suba de na am tey wala na am suba dedet ay proposition la lo xam jamono mo koy laaj ci soppi bu joté niñ soppi taxawal gouvernement d'union nationale té sénégal yi baña a ni ñi ñu gis ci politique bi rek ñu yëngo ko wax ak di wër di dig nit ñi ñu baña défé nyonyo ñoñu ñoo ñoo wara gouverne ñoo wara jité réew mi déedéet kangam yaa ngi làqatu nekk ci seen liggéey itam waaw daanaka un gouvernement moom boo ca mënta ñak duggal ay politiciens itam xana juroom ñaar doyna ci ah la def doon ñeneen faaw rek ñu delloo ci suñu xel waaw ma dellu ci war rek ci le ma ci président Macky Euh, dialogue national ak tournée nationale ak def évaluation ak yoy yep baxna mais à l'heure actuelle da am lu ko gën da am lu ko gën de te man waxantuuma fi bi fi la yam ak yeen man fan yi la wara amal ben conférence de presse bu extraordinaire len fa jox rendez-vous di len Yeni nak ci sen teewaay bi yéen ñi obligé fi wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh